man la Babou Khady Dieng di président nekk mouvement émergence commune de Fass Cekkeen tey dañu daje fii ci commune de Fass Cekkeen ñu am 10 tonnes de riz yoo xamante ni moom la ñuy jël pour jébbal sous préfet arrondissement di Amdi Moustapha Ba pour que askanu commune de Fass Cekkeen ànd ko ak le chef service action sociale du département di Sanda Sall tey ñoo ñëw fii nii euh, apporté suñu dix de riz mu war a dem si lu mat deux cent ménages euh, ménage bu nekk war na am cinquante kilos de riz moom la ñu defoon tey euh, ndax appel bi président de la République lancé ci ne lépp lu waay mën ci ci dimbalante nañ ko def loolu lañu dégg aussi naka jekk mouvement bi dañ doon taxaw si loolu di jàppale suñu askan ndax at yi yëpp ñu ngi joxe semence joxe ay intrants wax dëgg yàlla ànd ko ak ñu euh, am pas-pas bu mel ni suñu secretaire général Juma Camara ak seeni Diawle ak maire Fat Ba aussi ñu ngi remercier bu baax a baax suñu maire di monsieur le maire Mouhamed Dieng suñu waajur dëgg yàlla loolu moo waral daal tey ñu indi ceeb bi teg ci loxol euh, suñu sous-préfet mu teg ci loxol maire pour ñu jox ko euh, askan wi commune Fass Cekkeen. ok séddale bi nan ko nar a defee dañ koy séddale seen bopp wala am ngeen ku ko war a mën a teg bu ngeen koy tegee ci préfet ba préfet gërëm leen ndax yéen koy séddale seen bopp wala dañ koy jox ki xam ne moo yelloo mbir mi man ko pour mën ko séddale ci commune bi. waaw séddale bi ñun amuñu xam-xam ci côté boobu ndax euh, li ko def mooy ku mel ni action sociale ñoom as mën que mën nga ñu xaymal ñaata xaalis ñaata ngeen génn ci xaalis pour def lu mel nii euh, chaque tonne daal ñu ngi liggéey ok ceeb bi moo nekk dëgg fa yëpp dafa rafet waaw dëgg yàlla comme ni ko président bëggee rek moom daal daf nekk kenn ku nekk na nga dellu fa nga dëkk ngeen jàppalaat ak seen askan dégg nañu appel bi jëfee nañu appel waaw ci turu mouvement MEFT jërëjëf ñu ngi sant na ko tey yëpp dëgg yàlla ndax ñoom seen taxawaay ci département bi seen taxawaay ci arrondissement bi ku nekk gis nga askan bi yëpp mën nañu seet waaw